على الهاد شفيع لنا والآل وصحب ما دعا الدجى قمر jërëjëf Issa defee ñi ñëpp ñu ngi bokk nuyu sunu sëriñ sunu soppe sunu kilifa sunu wéyjur di cerno Hamidou Yoro Bane bu cerno Mouhamadul Bachiru Taal xalifa maam Cheikh Al Hadj Omar ñu ubbee woon rek ni tey amoon na ngànt ndax koo xam ni sa taawu baay moo wàññiku ca Mali ca Koniakari ñu la cay xaar waroon loolu doy na ëpp na ngànt ante li ma waxoon sànq rek cofeel moo tax mu yobal njaboot yépp ñu jiitu ko ci moom tamit mu toppaat ci seen gannaaw ñëw li wolof di wax ni koo ni xaw ma nu koy nu ma koy def fa mu la def ak fa mu la teg a tax kon Thierno ñu ngi lay nuyu baax ñu ngi lay ziar ngi lay masawu coono ñu ngi lay jaale ñun ñëpp suñu wayjur wu tedd wu sell woowu dem wuy ji yàlla boroomam yàlla yàlla teeroo ko yërmande ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa xam naa ni njaalu dëkk bi yëpp sa doom kàddu yi ñu war a joxe yëpp joxe nañ ko ñu woon boo ñëwee rek sa doom ji toog baaragay joxe ay kàddu ci sa kanam naa ne njaalu dëkk bi ci loxoom lay nekk gannaaw loolu ñu ngi lay seedeel rek ni li ñu waroon def yëpp def nañ ko li ñu waroon wax itam ñu ngi ci woon daane ki mën nañ sax daaneel suñu kàddu foofu jox la oustaz ma si lekkat mii dafa ne woon daf lay xaar ba nga ñëw parce que dafa am beneen jotaay parcelle te moom daf la sopp yow tamit danga ko sopp loolu man xam naa ci firnde yu leer nañ ndax fu ñu toogee wax ñaari wax ñett di nga ko tudd te loolu day wane cofeel e, cofeel googu mu am ci Mesila itam la am ci dëkk bi di caaro yi Kaw ci mag ñi fi nekk ñépp moom itam la am ci sunu maire Baara Gaye tabaarakallaahu wax naa ko sànq bi may ubbi ma ne Baara doomu sëriñ bi la waaw doomu sëriñ bi la kon tabaarakallaahu loolu rek moo doon kàddu yi ñu lay nuyoo di la ko ziyaare di la wàccee sa wàccuwaay ndigal li nga joxe woon tamit ci daayira bi ci loolu lañ sax wax naa ko bi muy ubbi ma ne leen sëriñ bi dafa joxe woon ndigal ni conférence bi at mu jot nañ waxtaane benn buntu ci xilaasu zahab comme dañ ko tuddee ngontu sayyiduna muhammad te ku tudd yonent bi ku tuddee yonent bi ngont wala ngay waxtaan ci yonent bi bëgg wax lu kenn dul dindi ci kaw suuf jëlal xilaasu zahab fi sirati siirati al arab bu maam Cheikh Seydi al haj malik ni la ko waxe won ñu tàmbale won loolu ba tey buntu juroom ñettel lañ doon waxtaane fi may daaneele te buntu juroom ñettel ci la yonent bi alayhi salatu wassalam takk khadija وتخمني وان buntu bi dama koy résumer ci fukki tomb daanaka fukki tomb yi ñaar rek moma ci déssé ci bir sëy bi bi ci dess moy can gi waxoon naa la Cheikh El Hadj Malick xilaas da lay jàngal sir ci bir khilas indi la masala fiq ci bir bayit bi mi ngi wane ni sëy munul wér tant que can amul sëy bi nag mën nañ ko takk te can du génn masalan tey am ku bëgg a takk soxna yabal bashiru Baan ak Ceerno Mamadou Magam ne leen dem leen ngeen ñaanali ma soxna bi ñoo ñëwee ba toog fi ñu leen di maye ñun leen ana can gi ñu ne ah, waa ji joxuñu can de su booba bàyyi ndaw si su nangoo mën nañ takk sëy waaye buñ ko takkee ñoom ñaar duñu wéet tànka can duggul dégg nga li ma wax duñu wéet tànka can amul Cheikh El Hadj Malick nag ni kaana kaafan bakëratan nee na buñ la laajee ñaata la ko Seydina Muhammad cane neel ñaar fukki gileem can gi bari na de xool ñaar fukki gileem la ko cane moo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum dafa daan wax ni ngeen baal ma ci wax bi dafa daan wax ni jigen buñ nee dafa bon loo def ci moom jar na ko ju baax na kenn amul njëgam loolu xam dayuy jigéen ak gëtey moo tax mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki giléem la cene kan xadija sadaaquha kaana kaafan bakratan ñaar fukki giléem nee na bi bi xadija bi ko yonent bi takkee nag Cheikh Al Hadj Malick ne xadija dafa kontaan ba jaam yu jigéen yi mu amoon yëpp keroog daf leen solal ay robb ni leen génn leen wane seen mbégte ima aha amarat بالرخص من طرب فيا لها فما لها يا لها في ذاك من إثم بالرخص من طرب إيماء بالروث من طرب فما لها يا لك في ذاك من إيزان مغني يا إلهي وديا غدا أنا محمدنا المختار جرجف جرجف شغل حاج مالك ني خديجة jaamam yu دفلن yi daf leen solal ay robb ngir mbégte ak xéewal gi ma yàlla defal Cheikh Al Hadj Malick nee na fecc moomu mu leen feccloo du ci am benn bàkkaar keroog ñu ni alaaji Malick ci bayit ba ca gannaaw yaa ni yonent bi ñaar fukki giléem lañ ko cane wax nga Xadija tamit wax na jaamam yu jigéen ñu génn fecc ceet ga lu fa xew mu ni wabil jazuri rasulullahi awlamaha nafisatun fa dasisun gayra muttaami الله مالك نين جلي متقل قري بس تشيت جموم لسيدنا محمد لوت راي بور تشيت لكو خديجة ني شيخ الحاج مالك تفوف لاي داني لي جوخ سيرين دي شيخ الحاج مالك ني وخون نانا بيماي تامبالي بونت بي شيخ الحاج مالك واخنا سي بناء بناء الكعبه tabax gi waa Quraysh tabaxaat kaaba gi xam nga kaaba gi ñeenti yoon lañ ko tabax tabax bu njëkk bi yàlla malaaka yi la sant ñoo ko tabax tabax bu ñaareel bi maam aadamaa ko tabax tabax bu ñetteel bi maam ibrahimaa ko tabax tabax bu ñeenteel bi waa Quraysh ñoo ko tabax waa Quraysh nag biñ ko tabaxee ñeenteelu yoon bay war a teg ajarul aswad ajarul aswad mooy xeer wu ñuul woowu nekk ca Kaaba ga waa Xuraysh wuute ci ñi sant Jóob ni ñoo koy teg ñi sant Njaay ni ñoo koy teg ñi sant Kan ni ñoo koy teg ñi sant Jàllo ñi ñoo koy teg bañ nar ci jàppante ñu toog ba yàgg ñi am xel ci ñoom ni nañ toog ku njëkk a dugge fii ci buntu kaaba gi fii rek bunt bii kooku su ñëwee nañu àtte ñu mu wax fan kooku dañ koy laaj ñan ñoo ko war a teg famille bu mu wax rek ñoo ñoo koy teg ñoom ñëpp ñu toog mais ak ci famille même bu santee Jóob suñ ñëwee suñ ko waxee kañ ñan ñoo ko war a teg su waa njóobeen rek waa njóobeen nañ jël teg coow li sotti na ñu toog ñoom ñëpp ñu jekk ba yàgg rek gis Seydunaa Muhammad mu tëll ci buntu ba di dox doxam bu teey boobu ñëw ci ñoom ba may ci ñoom ñëpp ñu ñëw wër ko ñu ko Lamine ajarul aswad bii ñu tabaxee kaaba gi ba pare moom lañ bëggoon teg ñu wuute ci ban famille moo koy teg dañ d'accordoon ni nag soo yegsee ku ku njëkk a yegsi fii rek famille bu mu wax rek famille booboo koy teg kenn dootu ci werante seetal famille bu la neex mu ne ñu sant Diop jox leen ma quatre personnes ñu sant Njaay indi leen quatre personnes yu leen neex ñu sant Kan indi leen quatre personnes ñu sant Diallo indi leen quatre personnes kenn ku nekk indi say quatre personnes mu ni cadre yi nañ taxaw nii ci famille bi cadre yi nañ taxaw nii cadre yi nañ taxaw nii cadre yi nañ taxaw nii ñu taxaw jàkkaarloo mu dindi kaalaam gi mu kaala woon moom Seydina Muhammad tàllal ko seen diggante ni kenn ku nekk na téye. kenn ku nekk téye mu yëkkati ajarul aswad ak loxoom yu tedd ya teg ci di diggu kaala ga ni topp leen famille bu nekk téye ñeneen ñu jàpp ci sa gannaaw téye comme góor buy rendi xarum tabaski ni waa këram yi di def topp ci ginnaawam téye ba nu àgg fañ ko war a teg mu yëkkati ko ak loxoom yu tedd ya teg ñëpp tàccu ni ko yaa maandu te yaay lamin lu tax alaaji Maalik ni wa xakamatu Qurayshun ism muxtalafoo nee na keroog bi waa Quraysh wuutee atte na leen atte bu mandu moom Seydina Muhammad yàlla ñu ko teewe déwén ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp bëggoon nañ mu gën a yaatu waaye dama mon yéene bu sëriñ bi ñëwee rek ndax xam naa fa mu jëm xam naa coono itam yi koy xaar te mag kilifa dañ koy sakana fas woo xam ni du tekki mukk toujours dañ koy takk bu ko dawal ba mu xoox waaw fas woo xam ni tu tekki mukk nit koo xam ne toujours mi ngi bay ci toolu diine mi ngi bay ci toolu diine mi ngi bay ci toolu diine yaakaaru jaam yee nekk ci moom xam nga ku ne sa taawu baay moo nelaw ca Mali ñun yow la ñuy xaar yaakaaru na am na yaakaar bu tax ñu lay xaar yaakaar yooyu nag yàlla bu mu yàkkiku ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam telegation bi nga yabal tamit ñu jiitu si la mat nañ sëkk ndaw Thierno Mamadou jiite leen ànd ak wuy jur yi tedd yi Thierno euh, Seega Bokar ànd ak Ibrahima la Chérif Diallo Ibrahima tubaarakallaahu ak ñoom Ablaye Parek sa njaboot yëpp fekk sa njaboot min ka rek ilayka bu la neexoon sax fa ngay toog nga toog ni Sémou Diop ak Babacar Cissé ak njaay Cheikhou Oumar ak Pape Faye wuutu leen ma ci jataay bi te dañ la fi wuutu mu mat sëkk ndax yow noonu ngay doxee waaw dañ lay wuutu mu mat sëkk ndax doyloo goo leen doyloo ak wóolu goo leen wóolu te li tax nga doyloo leen wóolu leen yow yaa ko def ci ñoom si mu jóob yenn saay mu nettali mu ni ma bañee xam cerno ñu nii waaye biñ ko xamee ànd ak moom diir bu yàgg lañu cuub parce que nitu yàlla booy ànd ak moom daf lay cuub daf lay soppi sëriñ boo ànd ak ren ba déwén te mënu laa soppi soo yóbboo nga bàyyi ko seeti keneen dégg nga ma wax sëriñ boo ànd ren ba déwén ni nga meloon ngay mel ah euh, bàyyi ko waaye bu dee lépp loo bëgg ci àdduna rek boo demee fekk ci sëriñ ba euh, waaw kooku xoolaat ko dama dégg Oustaz Masila mooy nettali lu nekk moom Masila mii toog dafa am ñaari taalibe yuy seeti benn sëriñ bi nga baal ma ñaari taalibe yuy seeti benn seen benn coro nee ñëw ba ci buntu kër gi nii kenn ki ni kenn ki eh, taxawal mu ne ko lu mu ne ko sëriñ bi oto sëriñ bi moo taxaw nii ci buntu kër gi ne ko ah bu fa taxawee nag lan la nan dugg rek mu ne ko wóorul de dafa mel ni sëriñ bi moo nekk ci biir kër gi taalibe bi am ful mel ni Pape Makhtar ni ko eh. sëriñ bi moom dafa may mën ci téere yi rek waaye du ma mën ci téere yi pare dàq maa doxaan ma koy toog damay dugg de kon sëriñ boo koy roy dafa am ay melukaan ay jukko yoo xam ne moo nekk ci moom jukko yooyu mu koy jël di ko def ci yow ba nga mujj doon moom loolu rek mooy sëriñ waaye sëriñ boo xam mun laa soppi ci dara kooku jarul ngay tardel sa temps cheikh Umar dafa wax radiallahu taala anhu démb rek dafa am ku ma ko laaj ni ma est-ce que taalibe am na droit kii may ko werd mu xëy dem yeeslu ci keneen ku dul moom ma ne ko loolu la cheikh Umar bind al intiqaalu min muqaddamin ila man huwa aala su la sëriñ mayee werd li nga bëgg ci wàllu yàlla amoo ko nga gis keneen xam ni kii mën na laa jox li nga bëgg ci wàllu yàlla demal jaayanteeg moom dama jaayante ak moom affaire bi du toog nii rek dafa am lu tax ñuy jaayante li tax ñuy jaayante ni da koy yëg soo ko yëgul da ngay seeti foo ko mën a yëgi waaye weer du téeméeri junni at ak juróom fukk ak juróom-ñett te yow fi nga nekkoon yaa ngi fi ba léegi mais am na lu xew ah, am na lu xew benn branché woo wala fa nga branché amul amul safara yow nag bi nga branché ñii wag ñëpp. alhamdulilahi rabbil alamin yàlla yàlla guddal sa fan wéral sa cër guddal suñu fan wéral suñu cër yàgg ànd ak yow yàgg toog ak yow ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf baan maa ngi jégalu kàddu yi maa ngi jégalu kàddu yu baax maa ngi jégalu waa tànt bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Abdou Aziz Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax moom it cofee rek moo ko indi ndax moom suba incha allah dafa amum tudd waaye cofeer rek Abdou Aziz Ndiaye dafa am tudd suba waaye cofeer rek moo ko indi moom yàlla na yàlla fay ko yëw moo ak ñi ma àndal ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf tabarakallahu Oustaz Pape Makhtar Sylla kaddu yi rafet na. chapitre bi nga waxtaane tey ci xilaas ñépp bëgg nañu ñu seedeel ko sëriñ bi mu ngi jëloon tey buntu juróom-ñetteel wa baada shahrayni fi zall aami summata xamsatin wa isrina yowman duna muttahami waaye marabu mu waxtaane ko ci méthode boo xam ni njaboot yépp dégg nañu ko nit ñi ñu ngi toog boobu ba léegi waaye kenn yënguwul ci wàllu xam-xam waaye tam ak ci pédagogie bi mu koy jàngalee yal na yàlla dolli fay dolli la wattu tabaarakallaahu mbokk yi nag sang bi agsi na xadrata cheikh ñu ngi lay wax ahlan nazalta ahlan wa sa talqa sahlan sa njaboot yépp ngi ni toog ñu ngi lay bége caaro yi nee nañu ñi ngi lay sopp caaro yi ñi ngi lay leerloo safina ñi ngi lay bége safiina yépp ci turu kilifa yi nee nañu ku ne xam na ngant amoon na waaye yàlla ak fonk njaboot yàlla ak ñeewante njaboot nga ñëw wéttali sa njaboot wax naa sànq bi Cerno Mamadu mu baax mii jiitu see di sa leer ma ni ah haza min zakal asad waaye nag bi nga ñëwee wa hahuwal asad Seydi Ban yàlla na yàlla yàggal la fi li ñu sàkku rek mooy ñu ngi nuyu xaaji Masila Kan di ko jox wàccuwaayam tabarakallahu muy kilifa ci xadara bi ni ko sëriñ bi waxee tànqam luwul daray njaboot di teewal fi ñépp nag ci turu muxtafin waaye li ñu bëgg rek mooy dañuy jox honorable monsieur le maire Hadji Bara Gueye waaw dañu programmé woon dañu programmé woon ñetti kàddu am na baal leen ñu xam naa du yàgg nag waaye dañu bëggoon jox honorable bu pare am na loo xam ni parce que lii lu ñu sos la te ñi ko sosoon oustaz wax na ko léegi muy Serigne Pape Faye ñoom ñi ak sëñ Babacar Cissé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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerno barakatu ceerno amidou Yoroban tay dama xamul ndax dama lay dalal en tant que dom ndax nga ma accepteel bayo gi mala bayo ci kanamu suma frère Bashir makoy nuyu bu baax diko ziarah wala dama lay dalal en tant que maire wala dama lay dalal en tant que honorable député bu ci nekk mën nañ ci ñëw waaye xam naa ni du fi xaj ndax guddi na dañuy sant sunu borom bu baax a baax bi mu ñu mayee ñu teewe bés bi ndax juróom-ñetti at ci ren ñeenti yépp daf ma fekk bitim réew ñetti yi fekk ma ci ay xat-xat daaw ma jaayante woon ak yow wax ni la déwén bëgg naa la tertul sama bopp yàlla dogal bi ma duggee ci tànt bi tey ñu wax ma ki wàññeeku ba wax ma sa ngànt ma ni waa lu xew noonu daaw laa ko jaayante woon ni maa koy tertu ren appen ma dugg ci tànt bi ñu ne ma am na ngànt ñu toog ba mu yàgg bi Mouhamed yegsee ñu dee ma ni ma yaa ngi ci yoon bi ma ni da nga waneeti sa bopp waxoon naa la naa la siiwal nag waxoon naa la ko de Bachir bi ñu duggee lawo daaw dama ne ko woon bu ma génnee ma ne ko naa la siiwal mu ne ma bul ma siiwal mbaaye dañuy sant sunu boroom bim ñu mayee ñu jaxasoo ak yow te lépp jaar ci Pape Makhtar Sylla ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci ay invitation yu ñu daan invité buy tëj li nga xamante ni moom mooy kaamil ba muy def fële ci Safina ci Scat Urbam nga doomooñu bés ñu ñëw di waxtaan ak yow ci élection yi war a jub si nga ne ma yow lan nga def yëmbal ma ne laa jéem naa sama kemtalaay kàttan tabax naa collège tabax naa lycée tabax naa poste de santé defar naa lii nangam nangam et cetera xale yi def naa lii permis waaye bi ma ni lay am naa projet pour defar kër imam yi da nga ni ma kenn du la gañe demal yaay gañe loolu dund naa ko ak yow ñu ne detewaay ñu génn ci élection yooyu ñëw ci élection législative kër bu ma génne labo eh, dama ni basir man dootuma campagne yi bàyyil ma dem tëdd sama kër basir reetaan ma reetaan yàlla dogal ci kattanam la nga ma waxoon yëpp ma teg ci sama bët Ablaye Sagna mii ba ñu génnee keroog dani ma booy jaratul ñuy sonal sunu bopp ci dogalu sunu borom bi jaar ci kàddu sëriñ bi tey yëmbal Sud am na vice président assemblée nationale bu taxaw ni ñu ngi la koy sante bu baax a baax di la ko ñëw gi ngay ñëw yëmbal sàkk la ci ñun parce que dañu xam sa maxama xam sa tolluwaay xam sa dayoo yàlla la fi yàlla bàyyi yàlla na la yàlla sàmm la ma la waxoon keroog bi Pape Matar di tëj kaamil bi mooy yoo àll suren yàlla na yàlla dolli sutura bu baax a baax yoo àll suren yàlla yàlla dolli sutura yàlla la fi yàlla bàyyi yàlla sàmm la ñi nag amuñu seen fay muy Pape Faye muy Semou muy Daayira Safina amuñu seen fay ku toll ni Thierno Amadou Yoro Ba ñu koy indi dugal ko ci ruq bi ñuy taataan leer gi wàcc tey yàlla leen yàlla sàmm yéen it tey bàyyil ñu taataan rek waxoon naa naa la siiwal siiwal naa la yëmbal siiwal la ci Sénégal siiwal la ci àdduna bi nag moo des allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërë ngeen jëf jërëjëf honorable tabarakallah waaw ñu ni gamu Mame Alhaji Ousmane Kayre le 17 la insha allah ci wër wi yemok aljuma danañu fa hadara insha allah bu ñu noppé gam ci ndigalu khalifa bi bu ko défé ñu bayyi alhaji masilakan kan insha allah mu tek ci kàddu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñu ngi xam nga bu ma yëgoon du ñu jëkk a jox baara wala fii dañu wax ne xaj yi bu ñu nee yàcc ba bëy yi màtt gan ñi xaj yi war a rus waaw xaj yi bu ñu nee yàcc ba bëy yi màtt gan ñi xaj yi war xaw ma ustaas bu ngeen yebee xaru waaw eh.

te Seydi Hadji Malick Cheikh Omar yi sëriñam te Cheikh Omar na lu tee mu ni ko sama taalifi maam yi firi ko fa loolu rek dèjà am na loo ci mën a xamee tabarakallahu mu ubbi rajo jël ko teg ci suñu loxo ubbi tele teg ko ci suñu loxo te musul jéem a incarné dara moo gën a woyof ñëpp waaw tey bu toogee Tiwaawan lañuy def suñu tarbiya mu gën noo fonk Tiwaawan saa bu toogee nëbbu boppam wan nu Tiwaawan nan la ñuy def booleeg ñaari sëriñam sëriñ bi nga xam ne bu jekkee jekkaale ñu ko ak sëriñ bi nga xam ne bu jekkee jekkali ñu ko wër amul ku mu ci rendrewul service ñun ñu nekk moom ñett wax dëgg yàlla ay programme waye dem tant que ko wax ba mu euh, monsieur le maire euh, monsieur le député monsieur le président futur wax lepp amna su ko koy ci ngeen autorité waaye man dama jàpp ni ndegam nit ku ne ci dëkk bi bon lool di def lu bon dañu koy fekk fa mu ne jàpp ko xanaa kuy def lu baax war nañ koo fekk fa nekk jàppale ko du dëgg looloy dëgg di comme ku jubali ñu fekk la fa nga nekk jàpp ku jub tey def lu baax ñu war laa fekk fa nga nekk jàppale la moom mii avec effacement xam nga bi muy lim bu doon lim tey yi mu investir fii ci biir yëmbal mën na jël temps bu yàgg ñun bi ñu ci gën a marqué mooy centre euh, commercial bi mu tudd Serigne Cheikh def ca ay centaine de millions loolu loolu euh, ministre sax defu ko wax dama la ku ñu ni maire maire nga rek ci maire commune yi mu def loolu poste de police fu ku ne xam ne sant yàlla ngi fi à zéro caaro yi benn poste de police doyu fi wala ñaar mu dem tabaxal boppam benn fii ah def fi zawiye alaji Malik def lu ne mu def ko ah dëgg la nag nit moom mënul ñàkki noonu waaye li weñ di bañ ci parfum ko fóonee dee nekkul ci parfum bi ci weñ wi la nekk li weñ di bañ ci parfum ba bu ko fóonee dee nekkul ci parfum bi ci weñ wi la ne parce que parfum ñëpp ngi koy xeeñoo te dara jotu leen kon kuy def boo ko fóonee dee danga am virus kon tabaarakallaahu cierno daara jengen ñewon te xerwa ma diko tabax ak jàkka lamu ca def buñu ko dindi won la ca def di ko mën yenu <coughs> ah deug la foog ma wax ko nak ndax ki def sañu wër di ko wax waye ki ñu defal sañu ta nopi ki def sañu ta wër di wax mais ki ñu defal sañu ta nopi serigne Abdul Amin neena ben way def mani serigne Abdou man day kuma ko am dima ca musal yalla nga fi yag nee na ma ne ko ku am te du la ci musal nag mu ne na ñaanal boppam wax na dëgg waaw taxawaay boobu la taxaw loolu dama la koy seedeel ah ki doon def nag waxtaan wi sama frère la sama xarit la sama élément la muy Pape Sylla Pape Makhtar Sylla jaar nañ ci dund nañu lu bari loo xam ni mënu ma nekk fii di ko répété waaye man xamoon naa ni ku amul xam-xam te di ko jëfee du yàgg fa ku jubul selul du yàgg fi sa ku amul fulla du yàgg fi sa kon bu yàggee fi sa wet dafa fekk incarné na ay qualité yoo xam ne nii mooy correspondre ak qualité yi nga làmboo yow ci sa bopp te li mu fi wax nii ñëpp dégg nañu ko ci xam-xam bu leer nañ la tege Serigne Cheikh si nag sama kilifa dafa wax ni bu ñu la jàngalee rek yem ci di nga bari coow waaye doo xam fooy taxaw waaye bu ñu la nàmpalee ci wenn yonent bi loo wax mu barkeel bu ñu janggal, jàngal la ba pare nampal la nag mu nekk xajaratun bi darbatayni ni benn xeer bu jëm ñaari picc te loolu moo daje ci moom kon tabarakallahu ah ñi organiser nag bu ma leen dee topp di lim fa ma jëm du ma fa àgg wala boog dina yàq programme bi barki démb damay def waxtaan def sabqul lisaan sabqul lisaan mooy juum day am te nit ñi nopp càmmuñ lañ lay dégloo fukki at da ngay wax lépp normal doo dégg kenn wax ci benn bis nga juum ci benn baat ñu tiktok la ma bëggoon a wax al kali al kalimatul musharrafa ma juum ni al jumlatul mufida fekk may wax ni baat boo xam ne boo ko waxee ñépp ne doy na sëkk te baat ba ñetti leetar képp composé ko ndax yéen ustaas yi mën ngeen koo indi ku indi sa tur doo ci mën a indi baat même bu dee ñetti arafa composé sa tur mënoo caa indi baat boo xam ni bu ñu xam la man leen yàlla def na ko yàlla aw turam allahu la ñetti arafa ko composé alif la ak laam ak haa noonu mu tëgg ci laa ilaha illa allaahu laa ilaha illa allaahu ñetti lettre yooyu ñoo ko composé xanaa gëm jot na ñetti lettre képp moo composé laa ilaha illa allah doy sëkk nga taxañaat ko mu dellu ni allahu di benn tur muy alif laam laam alsaxiir moo tax ma ne képp koo xam ni nee nañ la yow yàlla nga accepté ko walla nga ni maa yàlla bu ñu la dóoroon nga daan ñu këddale ci biir lu mën a jibe ci yow ak fu mu jibee yàlla du ma yàlla lay firi waaw duma du man duma yàlla loolu la loolu la baat bay firi fu mu jógee nag maa yàlla nga ni nga ni teg nga nga nga accepté ko ñun la yoway yàlla nga accepté ko wala nga gàtt xel ba ni maa yàlla ñu dóor la nga daanu ñu këddale ci biir lu mën a jib ci yow ak fu mu jibee du yàlla lay firi yàlla kenn rek la kon ah boole fi dañ ni li duuf ci nag wi ajul ci cin li waaye man sax maay wax ne xajandu ci waaye xaj na ci boo dee saaf di sepp yi te xajandoowul waaye boo dee boo dee saaf waaw waaw boo dee ah dina xajal wallaay kan lu léegi ah ah loolu la di ah Ndiaye Ndiaye ah xaj na ci xaj na ci kay. keroog Thierno def ma ni doo reeloo Thierno Bachir ma ni ko ah kay doo reeloo doo re ah direct lay def baal ma de Thierno daf ma ni na naa reeloo naa reeloo Thierno Bachir Tall xam nga El nee na. reeloo nitu yàlla wala nga dugal xool bu sedd ci moom uh-huh, mën na laa defal lu la jaamu at mayul ma ni ma ni ma ni ko Thierno dafa am benn waay ju jàpp imaamu dëkk ba dóor ko bañ di ko ëpp dóor imaam bi bañ di ko ëpp ñu ko ci boroom dëkk bi ni ko kii imaam bi la dóor ba mu mel nii mu ne loolu nu mu ko mën a def kii takk sëy yi di jullee niir yi di dudd doom yi nan la ko mën a dóoree ba mel ni tey nga wax lu mu def ba tax lii nga def ko te boo ñu waxul lu leer dinañ la def double li nga ko def mu ne li tax ma dóor ko dañoo nodd fajar ma jàdd ci jàkkaam pour julli ñu li xamal ko mu tari faatiha ma defe ne saar bu gàtt la ciy teg mu teg ci suratul baqara ma defe ne ñaari aaye la ciy tari mu tari baqara ba mu jeex tàkk première rakka deuxième rakka mu ni bëreet tari Faatiha ma defe ne day gàttal mu teg ci Ali Imran suuratu Ali ma defe ni aaya bu gàtt la ci def mu continuer ba nu seen jant bi fenk mu daal di sëlmal ni ngeen baal ma fokk nu baamuwaat ndeke yoruma jàpp boroom dëkk ba ni ko anamu kay loo naqari naqari xel gudd julli googu war nga cee mën a fàttaliku ni yoroo njàpp waaye gis nga rek la yàlla barkel Thierno xam naa ni boo ma ñaanalee rek maa ngi jëm ba fa ñuy wax église ca conférence su ngeen dem bëggee waaw di sant ñëpp nag sama turandoo kii nag noo bokk turandoo noo bokk tur góor gii ma ne ko bariwunu de yàlla nan fi yàgg bu fi bu ci xat dama cierno bu ci kenn wuñu bari wuñu de bari wuñu japp ci rek mom dal lu yag yag yow nak yel nga am téméré at ak ñaar fukk te boo gestoo gis nu waaw tabaarakallahu jërëjëf Baye Massila moom daal yàlla na yalla may la nga yag fi te xol sedna na ñu ne ñu bal ñu xamna xawna guddii waaye ñu ni bernde yi moom mi ngi fi te wax dëgg yàlla nit ñi rek ñoo tax ñu def ko bi ci tegu mooy kilifa yi ñoo sàkku léegi ni wax dëgg yàlla Abdou Aziz Ndiaye dafa ñëw te di soppe ñëpp di soppe sëriñ bi ci ndigalu sëriñ Thierno Ndiaye ñu ni Abdou nga bégal ko ci juróomi minute rek bégale ko sëriñ bi ba ñu paree ñu jox sëriñ Pape Faye mu tijjil sëriñ ndigal la kaay nii rek nga am moo def bismillah abdou ñëwal ni ñëwal ñëwal ni tey nga ñëw ni tabarakallah masyaallah tabarakallah Allah bismillah bismillah bismillah mikro, mangi, la waaw لقد رفعت رايات أسلوب شيخنا فمن شاف اليمن ومن ساء أنكرا لقد رفعت رايات أسلوب شيخنا فمن شاء فليؤمن ومن ساء انكرا دمان النبي الله نفي القتائه انا سبي الشيخ الى اخر الدنيا عن الشيخ غررا تاريخ بي طريق لسفي الحب والثكر والرداء ألا فاذكروا رب البرايا مذفرا كبك سيدي أحمد التيجان ألا فاصبروا أسقى بقت ولاية إذا عابكم يوم الغبيون وغيرا من مودنين ومن قبل غيب أمثال الرفا فيهم نينا لذي عقل سفي تبسرا شيخنا التيجان قديس ومن عادك فعن قصومة لمن كان منسوبا أقوام أبصرا فسؤن رجال الله فسؤن رجال الله خمل أذى الورى شيخنا التيجان وفي صحيح البحاري ما ذكرت لكم يا منكرون فمن ينكرون لا خطر قد يلتهى كل لحال كما خال السريف عناية قدما يهتاني كلام السنا سنجي بي مي وي هو منتخن هو مرتدا هو مقتفى من جل فاتي أول فدلاو شيخنا تيجاني يا سيدي حض لي يدا أنا خائف اليوس وأصير وضر فالوثاق رياو يا سيدي للأمر مني ما خفا يا الشيخ حال وتمريض لديك سناو شيخنا التيجاني أنت الخليفة الكيمياء للمنى فلقد بدت لأهل منك ذكاو فذل بكل أمان هو أحمد بن محمد نجل الولي المختار نجل جدي أحمد داني هذا الصليل محمد الظالم حقا أبو وخدوة الأذمان شيخنا التيجاني موي قدوة عهدة عمدة تخفة الإخوان رحمة عداية كفاية مزية نحلة الإنسان قد خسول مولى الطريق سفاعة يكفي سلوك عن البرآن من كان يدخل ينال بسفاعة من غير غد لا ولا ميذان فصلاته بصلاته داما على أين نعم وسيج الأعيان والراد بديمين لا تجر والأجنب وأخن بها الثياني من كان يدخل وينال بسفاعة من غير غد لا ولا ميذان وبآله أقارب أصحابي مناح ورغ الأيكفين أحزاني Aziz Ahmed Tidiane Abdou yaa baax jërëjëf tabarakallahu ah Cheikh Ahmad Tijaani kat daa neexul a dakk yàlla na yàlla sàmm la fay la moom mi moog sa ñiisaa mais ba bokk way jur tabaarakallahu kon nag ñu ngi leen di sant yëpp waaye njaayeen ak ñi ngeen ko bokkal yëpp bu ko defee xam naa li ci des rek mooy Serigne Pape Faye kàddu yi muy wax ci turu famille bi wax ko ci turu hadra bi ak mbokam yi mu andal ci seen diggante mu jëm ci xaj cerno mom lañuy bayyi rek mu joyal ko bu paree nag ñu déglu sëriñ bi incha allah gën a jafe de Cerno maa ngi ñaan ndigal auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim kàddu yi nag kàddu gërëm la ak sant parce que woote boobu ba léegi ca tàkkusaan ba léegi ñépp toog kenn yëngutuwul kenn raful di xaar sunu sëriñ bu tedd bii kon nag dañuy sant yàlla di gërëm waa koñ bi yépp ñu ngi jiital ci ngërëm li ilimaan bi bi nga xam ne teewul waaye am na ñu ko fi teewal suñ jógee ci imam bi ñu teg ci boroom dëkk bi di alaaji siini Dia moom soo soppe la suñ ci jógee ñu gërëm sunu rakk sunu député maire sunu mbokk sunu xarit El Hadji Bara Gaye suñ ci jógee nag ñu ñëw ci waa dëkk bi xale yi dëkk bi imam Amidou ñoom ngi nii toog ñoom taalaa ngi nii toog daayira yi yépp a ngi fi taxaw ñoom Issa surtout nag ceerno jigéen ñi ci sooba léegi ñu ngi toog ak a yàq ca tànt bi ñoo fees nday su ci biir loolu it aussi ñi ngi gërëm ñëpp ñëpp nun cerno dañuy sant yàlla daayira bi nun ñoo ko yoroon tey sunuy doom yor xam nga kon fang nu tegoon baax na subahulun. nu tegoon su baaxuloon kon dan naan yàlla nan rëcc ba génn waaye kon du nu gi du naan dugal sunuy doom ban des yàlla na yàgg yalla yalla guddal sa fan di wax ne deg na sank ku wax fi ne ku and ak nit ren ba ci ca wo ci na da nga lay wara yok ci ci wo si yobo nga bako kiko ko wax day amna xam-xam kiko wax amna xam-xam lol cerno limu diri lonkon ko ci ginnaawam gii waaye alhamdullilah rabbil alamin Serigne Mbaye Cissé xam na li may wax Simou Diop xam na li may wax ndax ba ñuy dem ci moom ñun ñëpp xam na ni meloon am na yoo xam ne nii sax dañ ko daan kii suñu egsee mu ne bàyyi leen lii ngeen di def ca musul wax ne ngir yàlla dem leen indil ma jox ma mu def ci sama poche du laaj kenn dangay dem kay mu lay yedd teg la ci yoon bu noppi di la jox ca jox joxam yépp li mu lay wax defal ci sa njaboot fonkal sa ñaari waajur moom liy chartam numéro un bala ngaa mën a ànd ak moom mooy nga jubóog sa ñaari waajur tant que jubóog sa ñaari waajur soo ñëwee mënoo ànd ak moom na yoroo ngi nii du la laaj da lay digal da teg ci yoonu siraatal mustaqim ñun loolu lañ bëggoon ci sëriñ am nan ko sunu doom yaa ngi nii wax fa dëgg neex yàlla Cerno mi ngi ci ñoom bërki démb dama ne ko man Cerno gëj ci yow moo ma gënal jege la ma ne ko saa bu ma gëjee ci yow bis bu nekk sama xel mi ci yow lay nekk waaye su fekkee ne maa ngi ci yow leen saay sax mën naa fàtte ne maa ngi ci yow mais na tànk maa ngi lay sori toujours maa ngi lay xalaat di xam ne yow yaay sama sëriñ ci noonu ñëpp kontaan nañ ci moom. kon nag Thierno wax bi ma daan wax e, soxna si tedd si docteur ñu ngi lay ziyaare di la wàcce sa wàccuwaay. Ndeye Assou Ndeye Sukay Guèye yàlla la yàlla fay gis nañ sa teewaay gis nañ teewaayu ñëpp nag ñëpp di wax nag Thierno caaray ko ngi nii amuñu lu dul moom amuñu lu dul yëmbal xale yaa ngi fi ñii wopp nañu ñii amuñu liggéey ñii amuñu jëkkër ñii ñii ñii ñii noo defal na nga daan def ba nëga di lii ma fiy jooytu nëga di duma ko jooytu ndax gis nga monsieur le maire gis nga bi mbas mi di wàcc si mooy sunu dernier conférence bi ñu def ci mairie bi gis nga bi ma ko waxee ma ne ko Thierno na nga ñaan ci mbas mi daf ne ah mbas mi waaye mbas mi waaye du fi lor kenn pourtant ko waxee woon ngi nii jàkkaarloowaat ak yow yal na yàlla guddal sa fan. yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla guddal sa fan nun nag ñu ngi lay jaale sunu baay bi dem ñu ñaan nag foo mu jëm yal na ko gënal fi mu jóge yàlla na ko malaaka bi yërmande teeru nun waa daayira safinatu caaroy ñi ngi ànd ak sunu maire ak borom dëkk bi di la ko jaale di bokk ak yow naqar bi yàlla na ko yàlla yërëm ñi ngi sant ñëpp képp ku fi ne aajo yàlla na yàlla na ko yàlla faj képp ku fi yenn jàngoro yàlla na yàlla na nga fi jóge wér indi woon rafi xaalis nag yàlla na la yàlla may xaalis ba nga doyul salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu tabaarakallaahu jërëjëf sëriñ Pape Faye kàddu yi rafet na xam naa sëriñ bi sa doom bi bi ñuy présenté sànq boobu ñëwalugoo muy soxna Ndey su Sukay Gëy ñu di la ko présenté soxna Ndey su Gëy mais toog di sa doom ñu ngi wax sànq taxawaay bi mu am ci dëkk bi ak mbaax ak bëgg tariqa bi waaye itam booba nag ñëwagoo waaye muy jàmbaar nga ñaanal ko yàlla bu ko defee li ñuy def rek mooy mbokk yi ki ñuy bëgg a jox nag mooy ki nga xam ni moom la Ceerno Mouhamadinil bashir Cheikh omar xool seede seede yi mu def ci moom ku gis ziyaaru Cheikh Ali omar Ceerno bashir Muntaka bi ñu def luga gis ña toog taxawaay ba ñu am ak seede yi Thierno Bachir def ci moom nga ñëw fii fekk ko ci journée bi muy def ñetti fan yi Thierno Bachir ñëw def ñaari guddi foofu def seede yi mu def ci moom léppam Cheikh na Omar al Foutiyu la waaye léppam Cheikh Ahmed Tijani la waaye léppam Cheikh Al Hadj Malick la tabaarakallahu tey ziyaar bu ñu am ci tariqa bi ak fu mag nekk ci tariqa bi. ñi ngi la koy ziyaara di ko jaar ci sa jëmm ndax xam nañ ni bu ñu la ziyaara ziyaara bi dana doy walis ñépp tabaarakallahu di sàkku rekk nga seet ñu te xoole njaboot bëtu ñeewante fa ajib bi lutfika laa bi ayni tahatturin inna tahattura aadatu sakraani tabaarakallahu kon nag unzurna bi nazratin wa agisna bi gawsatin bismillah لخالق خير الخلق خمد العلولا على باسيفنا ومنا وقد ألا على العرس ما على ولا شاكر الولا أحق عباد الله بالمجد والولا حبيب به يقدر إله ويقدر صلاة وتسليم علي الأولر على شيخ عمري مرب الولد إذ كان مسالا علينا بدرا إذا الأمر أصلا أتم الورى وأظهر وأبهر مسألة نبي الله على الجنان مبوب سيد المجد والأولى رسول سفي في القيامة مرجوت على كل ما إن كان في الأرض قد على شيخ مروي وحاجر للمولى مسار به على ودابت دار الحق تدور عن على أجر الورى قدرا وأدور مسألة نبي لو آل الجنان مبوتال دريد من شيخنا عمر الفوتي تال جابارو جم جاوي جم جم فتر سلام لانيال بقادي ديتال أنفتنين ولد أم قلتال جاوي عمر الفوتي بدر ممكن تعال ورا الفوتي وتعال حي مكة إلى عندي ولا ما عمر لم نروني ما فات ما عمر تعال صلاة على الهادي ولا بسباي سلام على من هاله بالجواري سلام على من هاله به إذا الدين لم يكن ولا كانت الدنيا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم Ceerno ne jazakumullahu anna xayran Ceerno ne mu ngi wax mbooloo mi yëpp assalaamu aleykum wa taala wa ne lu jiitu ñuy dugg ci liggéey bi bala ñu cee wax dara ne mu ngi ñaan ñun ñëpp ñu jàng fatiha ak salaatul fatiha ñu def ko hadiyatu rasulullahi sallallahu ñi ñu jiitu fa ca barzax ni yàlla yërëm leen jéggal leen ne bokk na ci suñuy yaay mi doon ànd ak ñun di waxtaan ak ñun lu yàgg ba mu yegg fii mu dellu ci boroomam mooy suñuy yaay Anta Njaay Atta Njaay mooy yaayu sama jóob moom mooy yaayu daayira bi ne moom mooy yaayu waa caare kaw ñépp ne bu loolu paase alhaji Dame Diop moom it alhamdulilahi alamin moom dellu na ci boroomam doomam Modou Mbène bariwaan na lu ma doon nekk ak ñun moom it ñu ngi koy jaale ci dellu waajuram ci suñu mag bi yàlla dogal mu moom it mu dëddu ci suba si ne ñun ñëpp ñoo bokk ñàkk ko ne alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi yëpp xam nañ ko ne nekkul lu ñu bokk sax waaye yàlla daf koo def mu nekk nit ku baax ne ñu ngi sant yàlla ñun ñëpp نيوخ الاخ الكبير كالابي نيوي جور بو غور بو ددو ني ماك موم مو ووتو بلاصو وي جور با نه الحمد لله رب العالمين دون كواق لدول تحدثا بنعمة الله نه عن 99 moom ak way juróom bu góor ñu doon waxtaan ndax dafa fekke ni ay xarit xaritam la lool mu wax ko ni ren ji dinaa la yóbbu Makka inchaa allahu mu ne ko déedéet mu ne ko yow yaay dem Makka waaye man demuma tam xarit ndaxte tamxarit bii di ñëw altineem bu jëkk ne keroog lay dellu ci sama borom ne digganteem ak jamono jooju dina tolloog juróom-ñaari at juróom-ñetti at juróom-ñaari weer walla lu mel noonu lee mu reetaan nag mu ne ko bul tiit ne foo nekk maa ngi ànd ak yow ne mu dénk ko ay ndénkaan yu bari ne ndénkaane yooyu it mu ngi koy sante yàlla mu ne ko nag boo fi nekkul li ma la li ma daan defal boo fi nekkul kan laa koy defal ne mucc joxoñ ko magam bi dem tey ne alhamdulillahi rabbil alamin ne xamul ndax def na comme no baaxoo lu baax comme na mu ko waroon a defee waaye nag guddi bii la ñu gëj a waxante ne mu ngi sant yàlla di ko sant mu ngi koy ñaanal it mu ngi koy wax it alhamdulillahi fii ma ne amul leen na lu may metti même li nga may yónnee mu ngi fii sama wet jeexul nee na nga dalal sa xel nee yow kay fi nga nekk yëpp del wax amin rek ñu ngi lay ñaanal guddi ñu ngi lay ñaanal bëccëg nee ci suba si mu dellu ci boroomam nee na loolu sant yàlla la nee na kon ñun ñëpp nañu ànd jàng faatiha salaatul faatiha hadiyatu rasulullahi sallallahu alayhi wa ne yal na yàlla yeesal yërmandeem ci ñoom ñu nit yal nañu yàlla bàyyi ndi lu yàgg fekk mu ngi ànd ak wér jàmm ak sàmm sàmm suñu borom ne yéeme na ci moom yal nañu ko yàlla defal Ceerno ne bu loolu paasee ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp ne mu ngi jiital ci nuyoo bi ñu jiitu ci wàllu diine ji ak ñu jiitu tamit ci wàllu aada gi ne Papa wax na leen depuis sànq ne alhamdulillahi suñuy soppu rekk ñoo fi nekk démb lu jiitu tey ne alhamdulillahi tey yàlla def na ni soppe yi bëri nañu ne comme suñu xarit suñu soppe alhaaji baara gay ne ñaan yàlla subaanu wa taala bi ko suñu borom dénk ne yàlla na ko yàlla téyel ko ne yal na yàlla dolli landam ci sa liggéey ne lépp loo sumb yal yàlla may nga mottali bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne boo santee yàlla nag war ngaa sant sababu ne mu ngi sant alxaaji Pape Makhtar Sylla mi moom mi nga xam ne moom mooy sababu ba ngeen xamante ne alhamdulillah rabbil alamin kontaan na it ci lolu ne muxtar jere jef ne li ngeen fi wax yeb depuis bi guddi gi tàmbali Safina FM daf ko def en direct ne mu ngi déglu lépp ba ci imam ja imam la ne borom dëkk bi la ne lu mu wax yëpp mu ngi ko doon déglu. ne yow it mi yore micro central bi li nga doon wax yëpp mu ngi ko doon déglu. ba Muxtaar tamit lu mu wax yëpp mu ngi ko doon déglu. ne lu ma déggul rek mooy nuunu wal wa maa yasturuuna bi mu ngi ko firee la ko dégluwul. ne xamul nag naka la ko firee. ne oustaz Pape Mokhtar ne na ñu ko firil ñu dégg may wax mbooloo mi laa koy laaj yéen ñi fi toog ñépp mbooloo mi dégg ngeen ma firi nuun wal xal mi dégg ngeen ko ah kaay Souleymane këyit bii laa yoroon te sama kër laa jóge xoolal foofu billahi lazi laa ilaha illa huwa xoolal nuun wal xal mi wa maa yasturuun moo ci nekk laa ilaha illa li ma wax est-ce que dégg ngeen ko dégg ngeen li ma wax Abdou Aziz ci xoolal li laa doon waxtaane lii waxuma ko ah, li ma bëgg a wax xam ngeen ko wala xamu leen ko Cerno man mi xaalaa ni nun wal xalam léegi nag ngeen baal ma man duma ko firi ci kanamam waaye danaa ko wan li ma bindoon ci këyit bi rek jox ko ko moom mu xoolal boppam waaye duma ko firi nag ci kanamam alhamdulillahi rabbil alamin ceer na ne alhamdulillahi rabbil alamin ne sant nañu yàlla bu baax ñaagim Allah subhanahu wa taala ne ñaan na yàlla subhanahu wa taala barke martabaji tati gonɗi e ne ngir barke ñetti martaba yu nekk ci nuun walqalami wa ma e ma yasturuna ne ngam barke martaba yu nekk ci biir nuun walqalami wa ma والقلم وما يسطرون ngam barke sirru bu nekk ci nuun wal qalami wa ma yasturuun nee na ñun ñëpp yàlla nañ yàlla def si ñun barke amin nee ñun ñëpp yàlla na yàlla def si ñun barke amin nee ñun ñëpp yàlla na yàlla def si ñun barke nuun حروف الهجاء حروف الهجاء غير المكررة المقطعة في القرآن كنون سكريان karfeje ɗe ngannduɗaa ko allahu alam muradihi gonɗi e qur'ana ɗe ne araf yi nga xam ne allahu alam bi muraadi yi nekk ci alqur'aan yi noon moo ci mujje muy alif laam miim alif laam ra alif laam miim ra qaaf haa yaa ayn saad haa miim haa miim ayn siin qaaf طه ياسين صاد قاف قاف نون نون والقلم والقلم وما يسطرون ngam barke ko woni mum ko ne ngam barke li nekk ci lii kenn ku nekk ci ñun yal na yàlla mottalil ko sa jubluwaay kala ko woni faandaare ma ne lépp lu nekk sa jubluwaay ak lu nekk sa mbébét ne yal na la ko yàlla mottalil ne bu ko yàlla mottalee yal na ci yàlla def barke ne Pape Faye nu mu ko waxee ne amuñu ay liggéey amuñu ay soxna ak yu mel noonu ak ñi mel noonu ne loolu yàlla rek moo ko mën waaye nag ñu ko koy woon moom yàlla en tant que tan wayta kono daira safina gonɗo gonɗo ca gonɗo scat urbam moni ne so moytoo rek day mel ni daira safina bu nekk scat urbam bi ɓe ñaguinoma hoto o duwaw ni ñaan noon nañu comme ñaan gu mel ni eywa kamɓe fof sukaɓe rewɓe fof jeeheddi ɓe keddori hen tan ko tafta joni an ah, kam yara so aɗa andi ne sohna yëpp dem nañu ba ñu dese ñett nit ɓe mbiya o minen kay daira a ñun suñu daira bi rafle de xale yu góor rek ñoo fi des ne yéen it. yàlla na seen daayira bi rafle. yàlla na seen daayira bi rafle. te rafle ci jàmm nag. te ci jàmm nag. Ah, yàlla def ci mbaax yiw. saa ne boo gisee moo ñëw nag. ko ne bëgg moo ko fi indi. moom ak wëllëre. caaro so ne caaro yi bu wootee. ko ngantu satti ngantu ne lu ngantu xat ngantu xat yëpp. ne dina fexe ba wuyu si caaroy gi xëcc. ne waaye même bu nekkoon ne Pa Muxtaar kese moo ñëwoon même bu ñëwul sax day mel ni ñëw na. wala comme nu mu ko waxee woon sànq. bu semu wala Pape Faye wala semu wala ñoom Njaay Cheikh Oumar. wala kenn ci xale yi. walla seyni ne bu ñu ñëwee rek mel ne ni ñëw na ne bëri na fu ñu dem ci turam te moom jëmal jëmam demul te fu ñu dem yëpp mat na ba macha allah ne amul lu mu wax nag ñi nga xam ne ñëw nañu ne ñoom ñi ñëw ñëpp nag ne imam ibrahima la moom dong bu ñëwoon ne ñoom ñëpp ñëw nañu Allah Bari beri Alhaji Profesor Bari mom dong bu ne ñom ñep ñew nañu professeur Sega Bokar tan Sega Bokar rek bu ñëwoon fo ngari nañu ne ah, waxul ah, waxul waxul nak bu tawam ñëwee andi kadi arti mo fof ak tamit ak soppeem yep eh, ne depuis ñom cior ak ñeneen ak ñeneen donc dal di berndam lii yëpp nag des ci dal xelam ne foo mu teewal ci jëmmam rek ne mu ànd ak ñoom ci Bacci Njaay ak mboolem délégation ji mu àndal ñëpp ndax xelam mën a dal ne bu leen gisee dina kontaan ne bu ngeen ko gisee it di ngeen kontaan ne ñaar ñu bëggante nag bu ñu gisee ba kontaan ne lu ñu ñaan yëpp yàlla da koy nangu. ne asantuma nag. monsieur le monsieur député le maire. lu mu waxoon ci monsieur le monsieur le député le maire. ne waxoon ki na ñëw teewee ci bés bi. incha allahu di ngeen fi daj. ne fàtte woon na loolu sax. waaye foog yàlla dëggal kàddu googu. moom mu ñëw. wasa jogaade ngantu ɗanngal walla goɗɗum mo baña am ngantu tukki walla lenen minen hayso ngantu heɓima momit min bo nganta ami allah adda kam yalla indi ko beela komin kalduno ko allah timmin ndax lu ñu waxoonte woon yàlla mottali ko ne ba tey alaji baara e ne mu ngi lay dénk say mbokk ne lépp loo mën e loo dul yàkkal say liggéey ne dimbali leen te yàlla tax ne lépp loo mën loo dul yàkkal sa liggéey dimbali leen te yàlla tax nee ñoom it nañ la bëgg nañ la teral ndax ci ñoom nga bokk ndax mbokk nga dëkkandoo nga tey soppe nga ci ñoom nee même bu nekkul politique yéen a nekk benn te it yéen a bokk génération. ne kenn ku nekk ci yéen mu ngi koy dénk keneen ki. ne Serigne Bara député le maire. ne dénk na la daayira Safina waa Caaroy kaw ak waa yëmbal yëpp sax. ndax daayira Safina. yéen la gën a mën a waxal. ne dénk na leen Serigne baara bu jóge ngeen jóg. bu toogee ngeen toog. bu waxee lu baax ngeen dimbali ko ci bu dee am na nu mu mel bu leen wax ci digg nit ñi waaye wax leen ko Pape Mokhtar mu dee ko ko ndax alkamaalu lillahi ne waaye nag moom alhamdulillahi rabbil alamin ni mu mel nii ci yaram ak yéwénam entourage makko ak entourage am eh, ak mënam déglu nit ñi expérience makko ak expérience am oh, ne du gaaw a juum kono hay so yiɗi juumde ne même bu bëggee juum wala so ottinaani mo juuma walla bu yëgul ne mu ngi juum inayatullahi inayatullahi mooy korse ci yàlla ne yàlla nañu yëkkati eh, taxawu ko mu bañ a juum ñu nag ñoom ñëpp ñu moom ñëpp ne lépp lu mu sumb nee na lutfullahi jiitu ci nee ñu nit yàlla na lutfullahi jiitu ci ñun nee yàlla nañu yàlla may fekkee nag nii déwén ak at yu bare bare bare yuy ñëw ne tey ñëwul ngir wax dafa ñëw rek ngir mu gis leen kontaan ne xam na ni it bu leen gisee tamit bu ngeen ko gisee di ngeen kontaan eh, waaye moom moom bu leen gisee rek day kontan eh, ne mu ñëw gis leen mu kontan rek moo ko indi ne amul leneen lu ko fi indi eh, ne li des nag ne bés fu mu ñëw ne fu mu a ñëw ne sikk amul ne ci ndigal la ñëwee ci ndigalu Cerno Bachiru ne wax ngeen ko sànq am na lu nga ci xam am na ci xamul am na lu mu ci mën a wax am na lu mu ci mënul wax ne semm bi am na lu mu ci wax mën a wax lu bari ne def nañu benn yoon ñu jóge fi Cerno wax ne nañu jaar Cees bu ñu jógee Cees ñu dem won ñu gis Sëriñ Abdu xam nga nu na waxee woon nu mu na jëflante ak moom noonu eh, nee ñu jëflantee noonu Sëriñ Abdu nee tey loxom bi teg ko ci dënnam bu tedd ba eh, mu ne boo demee ci Ceerno mu wax mu wax mu wax mu wax ceerno nag wali yu yàlla la te sëriñ abdu moom waxam kenn waxatu ko te na waxoon na ko boo bu deen yonte nga ak moom bul jox keneen loxo ba nga yegg ko ba nga yegg ci man sëriñ abdu teg loxo mu tedd ba ci dënnam ne mu ko téyee nii mu teg ci muy wax te moom yeggee na yoon yónnent bi sëriñ Abdou tamit tontu na ci yónnent bi ne xam na wax lépp moo yàq lépp ku xam lépp wax lépp yaa yàq lépp ne yàlla def ñu dem ne ci bés boobu ne mayul kenn loxo ba mu yegg ci Ceerno moom it mu fekk mu ngi koy xaar ci biti e mu toog ci fauteuil comme fauteuil bu mel nii ne mu jox ko loxo mu ne ah mbaa joxoo kenn loxo de mu ne ko sax taalal ko sax taalaluma ko <laughs> ne député waawoon maa ngi ngëpp sama loxo rek mu ne ko aw léegi jiital nga eh, demal nga jiita timis bi nee ñoom ñëpp ñu ànd julleedoo timis bi nee xam nga xam na se mu lay wax kay eh, nee loolu nag sant yàlla nee ci barke waliyu yi nee yàlla nañu yàlla may nekk ay tijaani yu dog ci tariqa bi ne yal nañ yàlla def ay ay taalibe cheikh yu du dog tarixa ba abadan ne yal nañ yàlla def nekk ay taalibe cheikh yu du dog ci tarixa bi ba abadan ne yal na yàlla ubbi buntu wërsëg yi ne yal na yàlla faj aajo yi ne bëggoon na wax lu ëpp li waaye nag ne xam na Pape Mokhtar wax na lépp imam jakadi haali fof ne imam dia wax na lépp hande micro central o minen aɗa haala bi dégg na ngay wax wax nga lépp haali wax nga lépp ne li des nag mooy ñu ngi ñaan yàlla ne yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla def ci réew mi yàlla yàlla def dal ci réew mi yal na yàlla def dal ci réew mi yal na yàlla def dal ci réew mi ne yàlla na yàlla def mbaax ci réew mi yàlla may ñu am ci yiw bi ne yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla aar yal nañu yàlla aar yal nañu yàlla aaral suñuy njaboot yal na yàlla aaral ñu suñuy njaboot yal na yàlla aaral ñu suñu diine يلنا يلا آرل نسني الطريق بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غم بارك نون غم بارك نون غم بارك نون والقلم وما يسطرون نون برك لا يوخ نون تيمير لا أكجرم بن مي اللهم نيلي داس نك موم واخوكو <coughs> ne dégg na léegi ñuy wax docteur ndey Soukeye Gueye ne ñu ngi koy ñaanal ne ci teewaayam ne yal nañu yàlla suturaal suturaal ko ne ñëw na teral mbooloo mi moom ak monsieur le député le maire ne yal nañu yàlla teral teral leen nii ñëw nañu màggal mbooloo mi nii yal yàlla màggal suñuy mbir màggal seeni mbir nii ñëw nañu jokk mbokk yal na yàlla jokk suñuy fan ñun ñëpp nee ñun ñëpp yal yàlla fay yiw nee nii rek mooy àddina nga dégg lu baax nga dem fa nga am ci yiw bi ne lu baax rek la lay ñeel ne lu mel ni wuyu si lu baax la ne am na ay waxtu benn seconde rek lépp da ci defaru da ci baax ne lii it ñu ci am yaakaar incha allahu lépp dina defaru ci biir ne yàlla nañu yàlla defaral lépp ne yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar àddina ak àllaaxira ne yàlla bu ñu yàlla rusloo yàlla yàlla rusloo àddina ak àllaaxira ne yàlla bu ñu jaaxle ne yàlla bu ñu jaaxle yàlla bu ñu jaaxle yàlla bu ñu jaaxle ci suñuy bopp yàlla bu ñu jaaxle ci suñuy bopp ne yàlla bu ñu jaaxle ci suñuy aajo ni yàlla bu ñu jaaxle ci bépp aajo bu ñu teg ci suñu kaw ni yàlla bu ñu jaaxle ci suñuy dépense ni yàlla bu ñu jaaxle ci suñuy dépense ni yàlla bu ñu jaaxle ci suñuy dépense ni yewén na ci yàlla yàlla la ñu yàlla defal ne eh, alhamdulilah jërë ngeen jëf القمد والشكر والإرفان والنعم لله سبحانه ربا له القدم الحمد والشكر والإرمان والنعم لله سبحانه ne Thierno ne làmmiñ bu texee yàlla rek moo ko xam Pape Mokhtar ne na ñaan ne ñun ñëpp nañu ànd ñaan ñun ñëpp ñu ànd jàng fatiha ñu sante ko yàlla subhanahu wa taala ñu ànd jàng salaatul fatiha eh, ñu def ko tawassul ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñee ñu woon yàlla suñuy doléance ci salaatan tunjina bi ne yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp bismillah